question yu bëri bari bari embrassé noonu ñu ñëw ci mbirum Karim par exemple Karim amul benn tribunal boo xamante ni euh, benn juge bu jël kayit même bu ñu jëlee bulletin casier judiciaire am kenn bindu ci ni wartul mën a bindu wartul mën a nekk électeur ma ne su ko fal cela veut dire que li tubaab naan il n'est pas déchu de ses droits civils et politiques or loolu pour nous, am juge rek moo am sañ-sañ def loolu te amul ben tribunal am ben juge Sénégal bu ko la preuve ki nga xamante ni moo juge Yaya Abdoul Dia bokkoon ci assesseurs yi doon atte Karim Wade dafa démissionner, jamono jooju bi mu toogee ab diir la bind expertise judiciaire mu l'air ko par poigne. mu ni amul fenn fenn fu état bi mën a jaar ba pour a candidat juge amul juriste juge sans compter les professeurs de droit sans compter les cours de justice la CDAO, sans compter euh, euh, groupe de travail des Nations Unies ak comité des droits de l'homme des Nations Unies qui est wane ni Macky Sall le gouvernement dañ tuddee lii jursi de la forfaiture Manam, war a doxal yoon xam mais nga bañ doxal yoon nga toog ci kaw yoon wi loolu mooy forfaiture loolu yëpp nag moo tax ñu d'ailleurs euh, pour votre information euh, démb qui est ji euh, mbaa tey astafurlah tey ci àjuma ji tey le 8 février

ba fii est dans la course ba fii est dans la course parce que amul buñ ko xagné fi euh dafa am tribunal yu féete ko. décision boobu yéexul la ñëw. nu yéexul du parce que décision de justice dañ ko appliquer même bu fekkente ne Macky Sall nangu ko appliquer dañ ko appliquer xam lu tax sunu constitution mo def ci article 90 de la constitution mu les traités yi nga xamante ne gouvernement Sénégal daf ko signé assemblée nationale ratifié ko ak ay convention yoy mo gën a fort dogal bu tukkee ci tribunal Sénégal dogal gogou mo gën a fort dogal bu tukkee ci tribunal Sénégal té comme dañu signé lool moy tawee leen nañu suñu souveraineté ci tribunal boobu parce que tribunal cdao moy tribunal bi nga xam ne moo gën a kowe tribunal fukki réew ak juróom yi faré ci cdao bu melni mu mel Nations Unies le fa tukkee engagé ne tous les pays membres de de l'organisation des Nations Unies loolu mooy le système international loolu mooy endroit droit et endroit droit dafa am lu ñu tuddee la hiérarchie des normes tribunaux yooyu ñoo féete ko suñu tribunaux donc bu ñu dogalee mbir dañ ko war a appliquer daar daar ça s'impose à l'état à l'état qui est concerné bu doon Mali noonu la bu doon euh, Côte d'Ivoire noonu la et cetera et cetera ah loolu nag moo tax Abdoulaye Wade ak PDS ñun pour le moment ñu élection yi amaguñ ci ku ñuy faral amaguñ ci ku ñuy àndal amaguñ ci ku ñuy jàppale ñun pour le moment dañu liggéey pour élection bañ a am ci ci condition yi bu fekkente ni Macky Sall ak gouvernement am nangu nañu dellu ginnaaw ni juum nañu ni ni ñu doxalee affaire bi jëmul yoon ñun pare nañu pour man waxtaan ak ñoom pare nañ pour man waxtaan ak ñoom ñu trouver déggoo consensus ci biir pour que ñu ajandeegum élection yi parce que lu mën a nekk la parce que consensus maanaam classe politique bu ñu déggoo ci mbir moo gën a fort loi